waaw. yow dangay ngay nekkoon Sénégal ñu toog jamono yu bari bëri gisutuñu la foo nekk Alassane. waaw maa ngi fii ci biir barab bi. mën nga dellu sul tuuti sa parcours. waaw maa ci fii ci biir Europe bi mais maa ngi diggante Espagne ak Italie toujours mais nag teewul maa ngi continuer di nekk ci bi ma nekkoon ba ba tey maa ngi continuer di def suma liggéey def lu ma waroon def ci musique. nit ñi nga xamante ni si maa ngi leen doon jëlee Sénégal te ko yow Sénégal dañ la xamoon ci lan lañ la xamee woon. waaw ci fuy métti. fuy métti yow yaa créé woon fuy métti. mais danga nga daw Sénégal ñëw nekk Europe. bëgg nañu xam lan moo la indi fii ci lan ngay yëngu ba tey yaa ci musique bi wala newoo ci musique bi. benn instant nekkatuma ci woon dañ ni nag dama daw mais kii ñëw 91 commencé ñëw Europe ñibbi si Sénégal def li muy def dellu si waat ñibbi si continuer liggéeyam kooku bu ne dafa daw mun nañ ni dafa daw. mais yaa ngi ci musique bi wala newoo ci musique bi Alassane. actuellement nekkuma ci musique bi. ci loo nekk Alassane. damay produire musiciens yi nga xamante ne si ñoo ngi Sénégal di leen fa dugal fii ci Europe. kon actuellement am nga xaalis bay produire ay musiciens. waaw xaalis nag moom ñoo ngi sant suñu borom. mën nañu xam yan musicien nga jot a produire bi nga duggee Europe ba léegi. benn ci Pape Diouf. fan nga produire Pape Diouf. def yóbbu naa ko Suède. Mhm. yóbbu ko Madrid envoyé ko fi sumay frère ñoom ndaama ci Italie bi jox ko élément tamit mu tëggal ko Brescia. à part Pape Diouf ban musicien beneen ngay produire. Abdou Kité Seck indi naa ko deux fois Espagne. Mhm. Yves Niang indi naa ko Espagne. Sidi Samb indi naa ko ak groupe am Espagne. léegi tay so done def comparaison showbiz Sénégal ak showbiz euh, étranger bi lan lay doon. lan moo tax showbiz Sénégal doxul. Wa xam nga lu tax doxul tamit ci benn côté kenn du ni kenn waroo def li. kenn du ni kenn tamit mënoo def li. lépp bari xam nga tay macha allah ku mel ne Pape Diouf du lu fi nekk ku mel ne Wally ku mel ne ñeneen ak ñeneen ba ci Pape Ndiaye Coppet Salam Diallo Mbaye Dieye Faye ñooñu ñuy def da nga koo mënta mu leer ñu koy def. mais dafa ci am ñoo xamante ne si tey dañuy xatal lu bari waaye showbiz nag ñun man su ma wàllu bopp man personnellement man Alassane Camara dama préféré di liggéey fii ci Europe bi que liggéey senegal Sénégal dañu naan ñaanante bi dafa bari hypocrisie bi ci biir showbiz bi est-ce que du loolu moo tax yow nga daw Sénégal ñu nekk. waaw bari na Sénégal waaye tamit am na fii ci biir Europe bi kenn foo dem ci àddina am na ñu baax am na ñu bon am na ñu la yéene jàmm am na ñu ko yéenewu. mais pourquoi yéen artistes yi ngeen bokk benn milieu bokk benn liggéey ba pare soxorante bi am seen diggante saa su ne suñu gisee nit ku war a dem rek coow li bari ci moom ñuy créer ay rumeur ak kenn xam. waaw man nag loolu daaluma xamal tax daaluma mooy li ñu def laay def te teewul dama leen di jëlee ba Sénégal di leen indi fii ci biir Europe su fekkoonte ni am naa xalaat bi ñu am ñoom wala ñu may dund li ñuy dund. du ma jël sumay visa moom moo ko nag du ma lijjanti sumay visa di ko jox kenn muy dugg fii ci biir Europe bi liggéey. ban message ngay lancé sa mbokk artistes yu nekk ci showbiz bi. mooy art bi dafa yaatu ci biir war a bokk ndey bokk bàyyi te ne ni ñuy def. dañ koy def pour bégal nit ñi yow mënuloo ni da ngay soxor wala nga bon ba pare bëgg ni da ngay mën a jug taxaw tey tey tey tey bëgg a wala nga kontaan loolu nit na nga ànd juboo boo ko tey boo ko bàyyi liggéey parce que Sénégal kenn am na koo xam ne Pape Diouf la bëgg am na koo xam ne Aliou Kessé la bëgg am na koo xam ne Abdoulaye Ba la bëgg xam nga li ma am na koo xam ne Papa Ndiaye la bëgg xam ne Sala bëgg dañu war a def mooy ànd rek bokk ndey ak baay quoi. mën nga ma defal benn acapella ci Pouye Métti pour Sénégalais yi fàttaliku la. waaw xool na gauche xool droit xool diggante teg ci sama wàllu message yu métti ma fay wax àddina nag fépp métti fi toll. moo tax ma ne léegi. allah amul